salaamaaleykum mbokk yi fii dana ma neex moo tax dama naan sarax dugg di leen nuyuwaat bu baax a baax ngeen am seen émission bi nga xamante ni mooy Arche Comédie Show fii si 221 TV. mbokki tay di ngeen gis lu garaaw ndekete man lima nek fi yeb keur gaangi toj man xawma ci dara ndekete gaa def ay bêtises tay la koy génne nak ngeen gis ka xol bu baax baax li gaay nek ci keur gi du dara nak di ngeen retane nak mais du dara dañi dem rek si premier premier concept bi ngeen xol wa ñu ngi ni ak euh, les deux Père Noël euh, damay lacc euh, premier Père Noël bi lan moy concept lan. fàtte naa concept waxoon nga de lan mooy Père nawel ci xale yi lan lay représenté. mbokk yi yéen a ko gisandoo de noonu la demee moom Père Noël yi de gis ngeen loolu bu baax a baax xam ngeen ne loolu erreur la léegi dañuy dem ci deuxième bi. Flo journal muy lijjanti téléphone bu tàkkaax bu tàkkul man man daal man daal man xaar man xaar man comprendre ma lii quoi. nan dem xool. téléphone amul silencieux. lépp silencieux Youssouf. wala bu sonné rek. <laughs> non bii moom duma ci wax ndey Fatou yow moom bii moom bii duma ci wax parce que yow journal lan la def loo bii dama koy dama koy romba garaawul léegi dañuy dem si troisième bi yéen kër yéen kër gaa ngi kër gaa ngi de ah demal ñu xool. positif car euh, dans la dans la posi positivité. positivité. Mhm. Euh, toute chose. Positivité. Ok. positivité positivité <laughs> te directeur école bi Positivité, positivité sax mënu kaa wax positivité tu me man daal nii laa quoi ni ni ah, ba mu soti, bu borom pas sérieux <laughs> pare naa ndey faatu mom xalaat naa ni moom mooy bitiskat bi parce que yow yaangi taxaw war a liggéey li ngay liggéey di fecce fecce mu yàgg moo xam te 2007 la xawma ma Yuusa Yuusa kañ la xewi lii li kañ la xewi ndey faatu baal leen tamit nan jàll garaawul nan jàll nan Aujourd'hui, nous sommes à Kirmassar, jeune zone de recasement, à l'école privée franco-arabe Bintoul Hamdi 2. Aujourd'hui, nous Bintoul Bintoul Hamdi bintul xam di la ni wax wala bindul xam di ah te moom man li ma li ma jaaxal moom mii sax dafa nduróox maanaam yéen a ngi bàyyi xel dessin bi si ginnaaw ñoom ñaar teg teg dama yaakaar ni bi mu taxawee si lan ka dessin du si ñàkk de lii moom rey na ma du ñàkk ñàkkul ne bi mu taxawee lan ka dessin waaye mbokk yi ni ngeen ko gisee nii lay demee saa su nekk amaat nañ mbégte lool bu baax a baax di leen présenté lii lii lu ndaw la rek lu leen wan waaye yu gën a garaaw mu ngi ci biir. yu gën a neex mu ngi ci biir fi ma koy tëjee dama leen di may revue de presse si fin d'année bi ndax ku ne xam na fin d'année mois de décembre ku ne xam na ni mois de décembre ñaari bis lañ si taamu muy le 24 ak le 31 décembre dañ si nemmeeku lu garaaw nag. waaw moom la yéene kaay xëy tey. jërë ngeen jëf yéen kay yëpp xëy tey ci fin d'année mois de décembre boo ko déggatee bu laajte lan la mooy fin d'année di weer wi nga xamante ni moo mujj ci at mi ñu taamu si ñaari bés muy le 24 ak le 31 décembre bis yooyu leen ci nemmeeku te nemmeeku ko ci. mooy taalum pitaal taalum pitaal bi nag foo tourné si ndakaaru day jaabaa jolle daaw seetaan naa benn boo xamante ni waa ji dañ taal pitaal bi dugal ko si poos bi dënn bi tippako dënn bee tippako waaw gëmoo leen ma dënn bee ti pako fa laa ko jugee nag dawaat dem suñu kër fekk xale bi taal bi taal sànni ko sama papa sama papa jàpp ko xëcc ko mu ñëw mu nekk li nag mu nekk yàq sa xaalis tiital sa baay noxalu tëddi ca laa fa jaare nag tëddi jour boobu 31 ma mbokk yi bëggewaat naa leen bu baax a baax a baax kontaan naa si yéen <laughs> di leen lay deme saa su nekk fas yéene leen bëggal ba ngeen kontaan na fii lay xewee